ñu jotee waaw keroog ci bis ku la tooñoon noo ko baal. asalaamaaleykum mbokki Géewul asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki internet yi ñu ngi fi ci Ngumba Géewul ci dara lu Géewul tey di le 26 juin 2020 ñu gis tey jii. ci li nga xam ne ci la ñu nekk muy mbas mi nga xam ne moo nekk ci réew mi di feebar bi nek ci rew mi xaw andi jafé jafe ci askan wi tay nak ñu jëm ci tabaski yi fekk fan rek ay bis tay ñu wacc fi ci daral gi fas yene xol naka la kat yi dundé ak feebar bi walu njaay mi xari ndax yomb na wala cher na ndax client yaa jënd ci ndax xari am nañu kon ñi ngi fi ci ci daral gi fas yene wacc fi ci ñi nga xam ñom ñoo jaaykati xar yi fas laaj seen xalaat naka lañu dundé euh, daral gi tay kon ngeen top ñu ngeen gis euh, ki ma taxaw moy Baye Cheikh di Cheikh daral bi tay ñu fas ko laaj euh, ci li nga xamne mom moy karange kaaraange daral gi ak euh, yan way ngeen teew fi ci daral bi sëñ bi ñu leen di nuyu ñu leen di fay bu baax tur bi naka la Cheikh fallat Cheikh Fall wa ñu gis leen tay ji ngeen taxaw ci daral gi ak feebar bi euh muy nekk lo xamne ba legi mi ngi dess ci rew mi yow mi nga xam ne yaa jiite ñi nga xam ne ñoo teral ndax matuwaay yi nga xam ne joxoon nañ leen ko nguur jox leen ndax matuwaay taxawaay boobu dinañ ko taxawee. waaw matuwaay yi noo ngi ci taxaw ni ñu ko mën ndax ñi nga xam ne moo fi nekk ci dëkk bi andi fi na fi ay masques yu doy teg ko bi ku ñëw ñu jël ñaari jox la wala ñett mm. loolu moom noo ngi koy noo ngi baax a baax. toogaay bee tam jotaay dajaloo bee tam dama koy wax ni ñu ngi ñu ngi sorante parce que feebar bi comme mi ngi fi te amul saafaraam li ne docteur yi dëgg rek lan war a bàyyi xel di ko def di ñaan yàlla musul nu ci ñu gis na fi euh, ci presque presque sori na àll bi dëkk bi ndax matuwaay kaaraange gi ndax matuwaay bi yéen a koy calculé waale pour ñi nga xam ne sécurité bi daana ki nga xam ne moo fi nekk commandant de Kébémer mm-hmm. nee na lim ci man da mi ngi koy def ñoom nag ni ñuy kaaraange duñ ko wax noonu duñ ñu ko wax. Mm-hmm. waaye bàyyi na nañu xel. Mm-hmm. kaaraange incha ñoom ñu ngi ciy def liñ ci mën ñaari at yëpp ñu ngi taxawaay seen taxawaay rafet na bu baax a baax. ndax suba gu ne léegi mu ñëw fii rendez-vous compte xool mm-hmm. def seen liggéey ñoom duñ ko wane. waaye nee ñoom bàyyi nañ ñu xel. te gëm nañ ne bàyyi nañ ñu xel. waaw ñu gis ne eh, daral gi jamono yi bu daan toll heure bi rek ni daan ñëw fekk xari bari fi lool tay ñu gis mu xawa yarax lan mo waral lool li tax xawa yarax moy jamono ji mbass ni dal ci askan askanu senegal yépp mm-hmm. di mbon bi yépp fa dal mm-hmm. ni nit ñi amé won jot di jëndi xar mm-hmm. jamono bobu bi koy wut ah! bayyi wuñ nit ñi wuti xar fi ñu ko war wuti bu ñu bu wara mat mat bu dem di wuti xar ñu ko fekk dara da mo gis ñu ko mëna jaay mo lool mo feeñ ni yéré na moo tax xar maa ndax jigéen ñi daan yari xar itam nañ ko daan jënde jënde wuñ ko koñ ndax gisuñu luñ jënd te fan yi daan nekk gumba di jënde xar di indi itam buñ demee ci marché bi dañ gis suñ dem daara jolof di ngeer fuuta di ñëw gis luñ indi ndax marché bi dañ koy nëbbutoo ko kii looloo tax xar yi xaw a ñu gis ne suba la marché géewu di altine ndax yaa ngi séentu yenn uh, uh, somm kii xar yoo xam ne dana mën a dolliku fii waaye am naa ci yaakaar ndax am na ñoo xam ne seeni xar Euh, indee guñ leen. yaakaar naa dañ ko ñu suba ci marché bi. lu ci bari tam ngumba nag bu ñu xool ci ngumba moom ne xar dana fi manqué wala du fi manqué moom. sama gis-gis bopp ngumba moom bu dee ngumba rek moom xar mën na fee def. ndax ngumba ñu bari i xar. ñu bari jënd nañ tabaski. ñi xaw kii tuuti rek ñoo jënd ko waaye ñu kii moom ñoom seen bopp ñu bari denc ba pare. noonu nag dara gi bu nekkee fii moom daanaka foofu leen fi ci tëli bi nekk ñi fiy jaay ci national bi di jënd prix boobu moo tax moo neex suñu baax suñu ba tax ñu génn fii mm. ndax am na xar moo xam ne bu dee jar juróom fukki junni mm. bu dee ku dëkk ngumba rek xam nga doo dee jooy nekkul ngumba mm. moo tax teel gi génn fii li fi jaay ci kaw tali bi moo tax ñu def mm-hmm. ñu gis euh, ñu baasal leen fii ngeen yeew ndax day fay par xar wala par baas ngeen fay suñu place bi ci dara kenn du fay dara bañ sa ba amul benn dërëm buñ ci jëlee maire laaj ren rek lan ah Cheikh Fall mën a tax mën a ren kët seen dara gi ren lu fay def lu ngeen fay def yéen a ko seen bopp ba mu def si di jënti leen seen i làmp di jënti seen ndox maa ko daan ren waaye ren moom ma leen ko defal waaye courant bi yéen yéen yéen waaw courant bi fayu na fayu na danoo jënd ay làmp fay kuñ ko waat jël hmm. rek leen def ndox mi ñu xool fii yëf yi yemoon ñu xool ko marqué ko toog jël benn waay teg ko fi mu nu jaayal suñ paree ma xool lim liñ liñ ci jaay. Mm-hmm. lim marqué ma fay. Mm-hmm. foofu daal jàpp nga xar yi daal comme seeraay bi ñuy wax jàpp nga ne dana dana yomb wala wala seeraay bi ci lay dëkk rek. waaw ah, su biir yàlla de li ñëw ak seegul gën a xamul dara waaye fi mu toll nii tam moom nguma moom. li mm-hmm. ñuy xar yi moom. ak par rapport lañ wax daal dañ naan xar sax jafee na. waaye daanaka boo dee xool ak na jamono ji kenn ku nekk fa nga woon boo ko tollee ñëw. da nga am da nga am lu waaw lan ngay ñaax ñi nga xam ne ñoo nekk ci ci dara li comme yaa leen jiite ci wàllu kaaraange gi joxoon masque yow lan nga leen di dolli. kenn ku nekk bu accès fii ci man fii ngay jaar ci man. Hmm. ma leen li ma li ma fi tege kat ma wax leen hmm. ku ñëw na nga takk masque ku jógee sa kër ñay ñëw ci marché bi hmm. bala ñoo ñëw ni indi marché ndax commandant bi nee na masque yi moom masque laa wu ci moom ku dikk ku mu jàpp fii. fayuwul kenn waaye dana la téye ba tabaski jàll bu ñëwee lu ci yoon def loolu yoon teg nga doo koo def nga jàng nga wax doomu aadama fii ñëw hmm. dañuy takk mars hmm. waaw boobu la waaw nga baamtaan ñu tur wi Cheikh Fall Cheikh Fall waaw jullit yi nekk jiitu jullit yi nekk te rafet seen liggéey bu baax ndax euh, mbaas mi ba mu commencé ba léegi rajo geewul hmm. seen liñ ci liggéey rafetlu nañ ndax bu amuñu benn heure de trois heures de temps yu ne wax ngeen yéen a ngi digal nit ñi. Hmm. nañu respecté responsabilité bi ñu jëm digal ñu def ko. Hmm. kon hmm, na nga def. sant yàlla bu baax a maa leen di ziar bu ñu gis la tey nga teew ci daral gi da ngaa ñëw pour jënd si wala da ngaa ñëw pour jaay. man damay jaay xaar. ah da ngay jaay. waaw ñu gis tey ñu gis ne ñu ngi ci feebar bi ak ak ak jafe-jafe yi nga xam ne ci la nit ñi jógee mhm. ba léegi feebar baa ngi des ci réew mi ndax ndax ndax ndax jéewul ci daral gi tey gi jéew na ci bu baax a baax a baax hmm. parce que par rapport diggante daaw ak ren hmm. daaw boo seetloo hmm. heure bi fii boo ñëwee xar day bëri mais ren ni mu gisee nii ah. demi noonu quoi wax dëgg yàlla hmm. ñun jaaykat yi yëg nañ suuf franchement par la waaw hmm. xar bariwul hmm. te cher na boo bëggee dëgg dëgg waaw ñu gis ne ñu gis ne askan wi ñi ñi ñaxtu ne xar yi dafa cher waaw cher lan lan lan moo indi cheraay gi lu ko waral cheraay gi li ko waral mooy ñàkk xar xar xar mu bariwul xar bariwul gaa internet prix loolu dongul waaw bu xar bariwoon du cher mais pour le moment 80 ah, gi dama lay nga xar dana dolli fii ak suba ñi nga am yaakaar daal suba ci marché bi parce que xamati moment bi moment nawet dañu ñaa ngi ci àll bi am na wax mais am nañ yaakaar daal suba xëy na juróoy ñëw indi xar yi bu na dolliku prix bi wàcc mais pour le moment moom bu bëggee dee dëgg dëgg dëgg nga bampi ñu tur wi waaw man Ablaye Mbodj ñu gis la nga teew ci daral gi ah, naka nga fi teewee da ngay jaay si wala da ngay jënd si. damaa ñëw pour jaay si xar. ah da ngaa ñëw pour jaay si xar. waaw waaw laay ñu dégg xar yi dafa am jafe-jafe yow sa xar ci yan prix la toll. waaw sama xar am na 200000 am na 150. ah kon yow daal amoo ndaw daal. non non yoruma bu ndaw xar yu mag laay. Hmm. laay ñu gis ne daral gi dafa mel na dafa xaw a war a yaraax ren. waaw lan lan moo waral lan moo waral. xaw feebar bi amoon yàlla na ko fi yàlla jëlee te daanaka xar yu bare bari moo tax xar yu bëri ren ba pare feer. mais fii suba yéen a ngi seen fay xar wala séntu leen li fi nekk rek. waaw daanaka daal li fi nekk xar yàlla daal xanaa coggal gi moom mën na noo di dugg suba. incha allah waaw ah, maa ngi leen di delloo nuyoo bi. waaw ñu gis leen tey jii ngeen teew fii ci daral bi. waaw ah, da nga fee teew pour jënd si wala da nga ñëw pour jaay. non man damay jaay si xar. da ngay jaay si xar. waaw ah yow sa xar ci ban prix la toll. man am naa xaru 150 am naa xaru 140. Hmm. am naa xaru yëpp daal am naa ko daal. yëpp daal am na ko waa ñu dégg ne xar yi dafa am dañ cee laxas dafa xaw a jafe seeraay bi. ah xar yi lan moo lan moo waral seeraayu xar yi. waaw ah, seeraayu xar yi nag du ci ñun ñun dañuy jënd rek di wut si dara. Hmm. waaw hmm. luñ ci am rek la wut lu ñu tegal rek ñu jaay waaw ñu gis ne ren ren taral gi dafa mel lu xaw a uh, wéet loolu waaw daaw la xari ëppoon nag moom lan lan moo waral loolu ah manka bi nag xam naa corona bis bi am ah, feebar bu feebar boobu mm-hmm. moo tax xar yi mënuñoo jóge ci àll bi pour mm-hmm. ñu ñu man ko jëndee foofu di ko yar waaw moo ñu xaw a waaw ah, mais mais am ngeen yaakaar ne fekk suba da ngeen séntu yeneen xar waaw ñoo ngi séentu de. Hmm. ñoo ngi séentu de waaye fi ñu wër fépp daal ñu gis ñu fi xar. waaw fi nekk daal moo fi nekkagul. waaw li fi nekk daal moom moo fi nekk nii. Abdou Aziz Abdou Aziz gis sa teewaay ci taral gi nan nga fi teewee ci tey. man daral gi dama fee teewee ngir euh, ñëw fii. Hmm. ngir euh, tabaski gi. Hmm. ñu koy préparé di xaar ngir yàlla jafal ñu ñu commencé ci bisimilah rahmaani rahiim ak lekk alhamdulilah alamin ñun ñoo ngi fii di xaar yàlla. yàlla def ñu xam ne loolu la. te ñëw fii. li nga bëgg suñu sañoon. di nga ci kàttanu yàlla ñu gis ne jamono ji ñu jógee muy mbas mi feebar bi ne ci réew mi xaw a askan wi bañ gis ne euh, jafe-jafe yi dafa metti ndax ndax sóoraale ngeen loolu yi nga xam ne yéen jaay ci daral gi. loolu lu la lu ñu war a la ñun ñëpp. ndax jullit moo jàppale mbokkum jullitam. te boo ko jàppalee ci li nga yore boo léegi yàlla moo lay xool bopp loolu moom xam naa ko te loolu ku ko defit sa bopp nga ko defal ndax ñi fiy ñëw suñuy mbokk lañ ñi fiy ñëw suñuy nit lañ loolu tax ñu jóge fa ñu nekk bu ñëw bu fekk si fii ngir bugg ci li ñu yore di xar yi fi nekk. macha allah bon tur ñu bambaat tur yi. Abdou Aziz Diop Abdou Aziz Diop fii ci moom yëwul. waaw Abdou jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal. waaw jërëjëf yéen it. kàddu yi am na solo yal na yàlla fay te yàlla barke leen ci bakkat yonent bi sallallahu bi naka mu. waaw ñu la tur bi naka waaw Xaadim ñu gis la nga teew tey fii ci daral bi lan moo waral sa teewaay ci daral bi. quoi ak sa caméraman waaw dëgg yàlla bu ñu fi ku nekk rek yaakaar naa ni doo ko laajte nañ fee teew chaque année ñun fi la ñuy dalal quoi waaw bu bu tabaski jub see nekk ba bisu tabaski ñu gis ne euh, ren jii ñu gis tey daral gi mu xaw a yaraat lan moo waral xaw a yaraat tey waaw que boo xoolee at yi passé yëpp daral daral bu jëkk daan na def ay ñaar fukki fan ba mais léegi boo xoolee ci par rapport ak at yi at ay quatre ans wala cinq ans léegi daanaka boo xoolee ci juróomi fan wala une semaine lañu daan daral parce que dépense mooy bëri charge yi day bëri daal charge yi boo ko bëggee teg ci kaw xar yi euh, mooy waral toujours ñun xar yi dañoo cher ndax nit li nga yar kese ci sa kër doyul ci dara xam nga da nga yar say xar sax jaay lañu dem jëndiwaat pour mën a am noo toog ak say client mais boo bëggee jël nag euh, charge yëpp nga teg ko ci kaw loolay waral ba pare nga cher moo tax léegi daanaka boo xoolee nit ñi tam bu ñu jënd ci bés ay fan la ñuy jënd waaw ndax wàllu ñu gis ne ñu gis ne euh, ndax client yi si waaw client yi nag bon ni ñu ñëwee nag des na quoi hmm. waaw commencement bon julo yi nga xam dañuy dem Dakar ñooñu ñoo daan ñëw di jënd si xar di dem bu ñu daan teel a jënd en masse mais clients yi bon ñu ngi jënd ay benn benn mais dañ naan mel ko daal xëy na bu ñu ci premier jour ay deux jours trois foofu la njënd mi gën a kii ndax ndax ndax ñi daan dem Dakar yóbbi xaral eh, ñi ngi koy def ren waaw dem nañ mais comme niñ daan di teel jël si defaguñ ko daan nañ ko def na daan nañ dem di jël waat waaw ñu gis ne daral gi ngi sa papa yan ngay ci loolu waaw loolu def def sant bu baax rek ko ñaanal suñu borom doole koy leer jóg bàyyi sa hmm. kon loolu tawfeex kon tey di jaay xar hmm, sant yàlla la daal hmm. waaw ndax ñu ngi ciy góorgóorlu bu baax te wax lu baax rek la ci daan def xar moom lu baax rek la waaw ñu gis tey ñu gis euh, feebar bi ngi des ci réew mi ba léegi te kaaraay yi nga xam ne dañ ko waxoon ndax kaaraay yi matuwaay yi ñu ngi koy ñu ngi koy sóoraale yokkalante xaalis beeg yooyu effectivement gisee dara bi sax lu mel ne mairie ñëw nañ fi ak euh, madame Dieynaba Sall kon conseillère bi moom it ñëw nañ fi euh, maye fi ay masque ba ci man mi di waxee yow am na masque yoo xam parfois dama koy teg sama moto mooy ñëw ñu nii maa ngi ak sama masque xam nga ak sama isa comme que affaire bi nit ñi fu ne la ñuy jógee di ñëw bon su ma gisee client bi ñëw jëf ci oto dinaa ko présenté jox ko gel mu ñëw laal gel xam nga ñu toog waxaale ma jaay ko mu dem xam nga et puis tamit damay jël man monsieur mooy jaay man dama koy wéttali rek. Ah. waaw. Hmm. da ngay ñëw fii pour wéttali ko. waaw. waaw ndax ndax ndax yaa ngi yow mi nga xam ne dañu ko wéttali ndax yaa ngi gis ne nit ñaa ngi ñëw di jënd si. nit ñi ah ñu ngi ñëw di waxaale dem rek xëy na dafa teel. Hmm. ñu ngi dem ak ñëw rek dem. Ah. bu ñu waxaalee dem ñu ñëwaat. Hmm. ñu gis waa waaw gis ne feebar mi ngi des ci réew mi ba léegi ndax ndax ndax nit ñi ñëw fi yéen leen suuraale ci wàllu kaaraange waaw waaw parce dañ lay wax nga takk masque masque moo gën a wóor mm-hmm. ah, jaay xar ak yëpp moom ñooy am lépp liggéey la rek nit kay loo mën a nekk di ci am dara rek baax na y a pas de rek ah dóor waar rek bañ a toog ci kër ga rek <laughs> waaw incha allah am na nga def sant ak moom tur wi naka la. Moussa Sow waaw ah, Moussa ñu gis leen tey ngeen teew fii ci daral bi di waajal tabaski ñu gis nga tey daral bi xaw naa yarax loolu ah, lan moo waral xaw a yarax. xaw a yarax gi mooy jur gi sori rek. Hmm. xaree xaw a sore rek te nit ñi jënd ju la mënta jënd dem ju jëndee bu ñëwee du mën a delluwaat parce que boo jaayul doo mën a delluwaat jënd waaw bu fekkoon nit ñi dañoo jënd nga a delluwaat jënd xarit yu yaraax ni client yi ñëw guñu wala wala wax lay jotagul hmm. ah, hmm. hmm. gis ne xar yi ko xaw a seeral moo tax nit ñi di mel ne lu xaw a daw te ñu nekk ci feebar bi ndax yéen a ngi tuur bàyyi loolu xel xar yi seeruñu parce que cinquante ba ba deux cent ba trois cent ba cinq cent ba un million am na. fu ni toll rek fu sa mbagg toll rek sa prix nga am foofu. waaw mais boo yoree cinquante bëgg xaru deux cent du ko nangu. loolu la waaye daal ku am cinquante boo ñëwee fi ko. doon xar ku am cinquante hmm. dana am xar. ku am quatre vingt dana am am xar ku am million dana am xar. Hmm. ñu gis ne xar yemul fenn. ñu gis ne ñoo ngi ci dimanche suba di marché bi di altine yaakaar ngeen am na yéen xar yoo xam ne ngi koy séen waaye daal li ngeen fi gis daal moom ngeen yaakaar ne daal ngeen am yaakaar daal ne moo fi nekk. waaw li fi teewagul daal moom am na yaa xam xam nañ ne mu ngi fi. waaw mais li ñëwagul li muy séenu moom moom moo nagul ñu tur bi. Moussa ñu ngi lay jaay kàddu am na solo jërëjëf. waaw ah. bi ñu ngi lay nuyu. waaw ah, tur bi naka la. Papa Lay. Papa Lay ñu gis la nga teew fii ci daral bi lan moo waral sa teewaay fii. Ah, xanaa jënd ak jaay rek. jënd ak jaay. waaw waaw xar yi ngay ja xar yi ngay jaay ci ban prix la tolloon. seen prix lay toll. am naa soixante quinze am naa quatre vingt. Hmm. pour maanaam jëm nii rek am na yu am naa yu soixante soixante cinq. ñu gis ne ñu gis ne ñoo ngi ci feebar bi. waaw ñoo ngi ci gis ne nit ñi jamono ñu nekk xaalis amul. Hmm. ndax tey bu ngeen tey ndax bu ngeen wàññul jafe-jafe yi du du du du yokk ci ci xar yi. ah mais xaar yi nag noonu dañuy dem ci marché yi rek heure bi dem maa nga kër Mor Sarr hmm. di wuti xar noonu mais foofu cher na fa. teer na moom. waaw yow yar daal da jënd di jaay waaw dam man moom damay jënd ko jaay rek. waaw yi ak xari yi ban moo ci gën a ban moo gën a yomb. non xari yi wëtt ci àll bi ñoo gën a yomb xari yar yi moom dañoo cher. dañoo cher dañoo cher moom. waaw yow ñu gis ne nga ne soixante soixante naan comme xari yar bu ñu eskee kon. waaw mooy gën a gën a cher de. waaw xari yar yi moom mënuñoo jar yooyu yi yeew. mënuñu mm. koo jar moom. Mm-hmm. maanaam xari yi wëtt ci àll bi yoo mën a jar prix yooyu daal mm. ndax ndax jàpp nga ne xar yi yeewi kon ren jar ah, ah waaw ñu ngi jar moom ñu ngi jar macha allah hmm. ñu ngi jar ñu ngi jar moom ndax am na ñoo xam ne du xaru yar rek la jënd moom duñ jënd yeneen xar jënd yeneen xar hmm. waaw yéen ñi nga xam ne di jënd di jaayaat ndax ndax ndax seen njaay mi ngi dox ñu ngi koy jënd si waaw ñu ngi jënd waaw ñu ngi jënd ndànk ndànk moom ñu ngi jënd moom hmm. waaw ñu baamtuwaat ñu tur Papa Lay Papa Lay Papa Lay ñu ngi ah, am na solo sant gi am na jërëjëf jërëjëf sa xewal ah Bàcc tey ñu gis ne ñu teew fii ci daral gi ñu gis la taxawaay fii ah, ban taxawaay nga taxawaay ci daral gi jaaykatu xar jula jula waaw ah, yow yaay jaay xar yi ne fii waaw xar yi gis ne xar yi eh, dafa seer loolu lan moo waral seeraayu xar yi jamono moo fi toll ndax àdduna lu fi yomb amul parce que xar yi dundewuñ suuf dundewuñ uh, ndoxum kese dafa am lu leen di lu leen di taxa ngir mën leen a bëgg muy uh, ngooj di ràkkal di mboq di aliment de bétail ripaas yooyu yëpp benn yomb ci nit nag la muy jënd di ca fere vraiment bu sañoon da cay am lu tey tegu boo jëndee am xar yor ko 6 mois di ci frais muy lek mboq di pass ba tollu ci lu mat 6 euh, mois nga genné ko diko jaay fokk mu am lu ci teggu loolu do nga ndi ci rayu xari mm. compte be cher wa ñu ñu gis né ñi ngi ci euh, ñu né ci fever bi mu jàpp askan wi mu xawa metti loolu ndax tay ndax tay ngeen aj xari non rek dan dan dana nek lo xam lu len lu leen di arranger lay doon wa fever bi nun ñepp la japp ndax nun ñi wax wax ak yow ci askan ni lan bok mm. xar yi judduluwuñ leen dañ leen a jënd dong au contraire dañu wax ni tax nun ñoo ci gën a sonn nun jël suñu xaalis dem ci banque yi lebi xaalis ñëw pour satisfaire bi kon nun dañuy wax ni nun ñoo ci gën a sonn li am solo daal mooy kenn ku ne boo jógee sa budget fa mu toll am na xar mu fa toll waaw waaye nag wax dëgg yàlla bu sa budget tolloo ci soixante mille mm. nga waxaale xarum cent mille mm. cher na rek ngay mën a wax loolu rek mooy problème mm. yow en tant que jullit ñu gis ne daral gi nam daan mel ren ni muy mel ren ak ni mu daan mel daaw bokkul ñu gis dafar yarax ren ndax jàpp nga ne fii ak suba xar yi dana doole waaw man de jàpp naa ne xar yi moom dana ñëw ndax contexte bi tabaski tombeel la dafa tombeek fii euh, euh, dëkku baykat la yàlla dogal ñi fiy jaayee xar yi ay baykat lan yàlla dogal mu taw ñu toll ci ji ak bay ñu bari duñ mën a bàyyi seeni tool di jaay fii xar dañuy xaar ba des deux jours trois jours rek ñu génnee noo xar yi waaye xar moom jàpp naan dana fi dana fi bari ci sama yaakaar daal waaw li ma jàpp daal man jàpp naa ne xar moom kenn ku ne da am xar ma nga toll lool hmm. waaw loolu daal foog naa nga bamtu ñu tur yi Eh, bàcc fal, ñu gën koo xam saa kaw waaw bàcc bàcc ñii la jëf allah jërëjëf merci waaw ok soxni tur bi naka la mam faje ah, mam faje ñu gis la ci daral gi ah, ban ban ban kii nga toogee ci daral gi ah dara gi daal moom wax dëgg yàlla. daan na gën a ala daw mi. yow da nga jaay si wala wala lan ngay def. waaw dama fiy jaay rek sama waaye tey moom wax dëgg yàlla dara doxagul. dara doxagul dara doxagul moom dara. Hmm. ñu ne jula yëpp da toog xoolee daal lañ fi nekkee. Hmm. suñ togg yi luñ togg dañ koy yàlla hmm. daaw daal macha allah moom waaye ren moom gisaguñu dara. gisaguñu ah, xëy na nag fan yi mujj yàlla baax na. waaye nii moom wax dëgg yàlla. gisaguñ ci suñu ah, lan moo lan moo waral gisaguñ leen seen bopp. ah xëy na dëkk bu naqari bi rek ak nawet beeg fi mu tombe rek. Hmm. yàlla baax na ak ñàkk xaalis bi rek. Hmm, ak feebar bi ci réew waaw ak feebar bi ci réew meeg yooyu. waaw mooy li ma la war a mooy li ci dëkk bi rek. moo indi nii lépp waaw ñu gis ne hmm. eh, feebar bi ba léegi mi ngi des ci réew mi. te yéen jaay restaurant ngay jaay. mu yoo xam ne joxoon nañ ko ndax matuwaay yaa ngi ko jëfee ak client waaw damay teg fii bool. tegal leen ma daal. démb indi nañu ci ay mat mi ngi nii sama poos. maak samay doom yëpp suba ci lënd ñoom ñëpp ku ñëw dinaa la jox nga takk samay masque ngi nii bu subaa fii laa leen tegalaat bool tey damaa liggéey ndax dimanche yi moo tax ma dugal ko waaye bu subaa dama koy tegal masque yi waaw takk jox leen takk waaw